Eh, di tàggawaat rek tey incha ba ci rek di gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye eh, di sant bu baax baax nag suñu suñu aaw boru këram ba ci Italie uh-huh. muy Nogoy Gueye nga xam ne moom macha allah moom daanaka da ko doon def waaye defaat ci ci julli gi moom moom day day day day ay ay tissu yu bëri mm-hmm. daal di koy baaxee xale yi ma def defal sa yow defal acca <laughs> mu koy defal yëpp allah uh-huh. eh, dem sànq noonu rek te dem maa ko doon waxtaan soxna si de xale yi wala fekk ñu muy ay tiisi foofu ñu ne mm-hmm. Noga Gueye moo ko jëndal diw ak diw ak diw muy suñuy doom kooku di ko ci santaat baax a baax di ko rek mm-hmm. ci kaw ci kanam ci lu baax di ci ziare grand bi jëwriñ Abdoulaye Wàcc depuis Italie moom it Ibrahima Wàcc suñu mag suñu xarit soxna Awa Top moom it di ko nuyu baax waaye di nuyu tante ji ak soxna faam ñi ñu xam te ni ñoom ñooy def bernde yeeg café yooyu mm-hmm. di ci jàpp baax a baax di kon jox daje rek incha allah ba suba jàmm ci beneen numéro incha allah